bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamaani ala nabiyi mustafa bokki jullit bokki taalibe yi nga xam ne yéen a ngi topp seen euh, télévision bi nga xam ne moo nekk ci jumaa ju mag ji fi Touba ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara ak fu ngeen mën a nekk di ñu topp ak teewlu euh, di am mbégte bu baax a baax nag itam di ñëwaat ci yenn ci jotaay yi nga xamante ne jotaay jàngale la jotaay fàttali ak leeral lenn ci yi nga xamante ne euh, mën naa lënt ci ñenn ñi ngir rek lépp lu ñu def mu gën a dëppoog ni nga xamante ne euh, buñ ca noppee lañu ca diggee ci ak pay danañ ci mën a jot di ndokkeel ñëpp itam ci weeru màgg wu tedd wi ñu dugg di safaru xayr di séentu bis bu mag bi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu bokk di waajal mooy bis bi sëriñ bi demee ci tukki bi loolu itam moo tax buñ ko jubee dana yal lool ñu gën cee fàttalante gën a soññante ñaaxante ci népp nu ñuy mën a def ba gën cee mën jariñu ndax bëggoon ñu jariñ bi rekk taxoon sëriñ bi digal ñu ko ci Euh, anam boobu moo tax tey ñu fas yéene dalal euh, kenn ci waram xam-xam yi nga xam ne ñu ñu ràññee lañ lool ba du jar sax ñu leen di xamle ak moom ndax ku ngeen miin la ci jàngale ak fàttali ñi nga xamante ne ñooy bokki jullit yi bokki taalibe yi te li ci ëpp mu koy jaarale ci fii ci setul juma ji di grande mosquée Touba TV muy alxaaji Fadilou Bousso euh, Thierno ngeen xam ko bu baax a baax ci taxawaay yu am solo yooyu nga xam ne juñu naa ko sànq euh, kon sëriñ Fadilou xam naa bu ñu la nuyoo ba noppi jox la nga nuyoo dañu lay laajaale benn laaj boo xamante ne xëy mu yitteel mboolem ñi nga xamante ne am nañ pas-pasu jëfe ndigalal sëriñ boobu ci feeñal seen mbégte ci mbégteem sëriñ bi ci fukki fan juróom-ñett ci weeru safar ñu koy tuddee màggal euh, mooy nan naka lañ war a màggale naka lañu war a màggale sëriñ Fàllu aouzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu fii ci pàkk bu sell sell bi ci Touba ci biir jumaay Touba di jaarale sunu nuyoo itam ci daairatu muqaddamatul xidma di rafetlu seen liggéey di ko jaarale itam télévision bi nekk ci biir jumaa ji seen site di ndokkeel mbokki jullit yépp mbokki taalibe yépp ci weeru tedd wi di weeru safar di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala ñu fekke bis boobu di fukki fan ak juróom-ñett ci weer wii te man koo defee itam ca anam ga nga xamante ni alhamdul xadim radiallahu anhu ci la ko digle woon ñoo ngi lay sant sëriñ am ci ni ubbi gi di porox ndoll foofu rek di jëm ci laaj boobu nga joxe màggal gi day ginnaaw bañ xamee ne ci lu ndigalal sëriñ bi la te itam moo ko digle tàmbulil ko boppam mu jóge fi itam ak njabootam di ko wéyal ànd ak mbokki taalibe yépp waaye itam lim digle moom sëriñ bi lenn da ce génn diine lu latudal tuddal ki sëriñ bi moo ko def wala mu digle ko wala mu wax ko xanaa xam wala ñàkk xam waaye am na cëslaay ci diine kon buñ laajtee kuy wuy si di màggal si fii ci Tuuba wala ku bëgg a màggal ndax màggal defe ko fi Tuuba dafa am ngëneel waaye nit mën naa màggale feneen rawatina su amee gàllankoor wala ngànt bu boobaa itam nañ ko ko digale woon rek bu ko defee noona itam tuyaaba jën cee séentu itam sunu borom mën ko caa bindal nu ñuy màggale nag dañ ci déglu koo xamante ni moo ñu ëpp kàddu muy a Cheikh Mouhamadul Fadal Mbakke radiallahu anhu moom xaadimu rasul ci bisa màggal bu ñëwoon ci atam dix neuf ba muy def ab discours am muy xutbaam fàttali woon na ci mbokki taalibe yi ak jullit ñi wuy si màggal gi ak ku bëgg a màggal nooy màggale dafa waxoon ne fa azimuhu bi qiraati alqurani wa dikri wa salaati ala annabi wa it'aami taami wa silati rahimi wa ziyaarati saalihin wa mudaarasati siyari saalihin loola ci tënk ca la leerale woon kuy màggal wala kuy màggal si noo war a màggale lam ca jiital mooy bi qiraatil quraan muy nañu ci jàng alquraanul karim ndax mooy téere bi nga xamante ni bokk na ci ndigal yi yu sax yi sëriñ bi digal jullit ñi rawatina taalibe yi ci ñu koy bàyyi xel kullu muridin bi yaloosu fal yu dim tilawatan li xayri dikrin qadrusim nee na képp ku aju ci man nay saxal saxal la wax di jàng ngën ji tudd yàlla te mooy alquranul karim kon ndigal lu sax la waaye ndigal lum sax-sax itam am jamono yoo xamante ni ci lañ ko gën a bëggee ak luñ ko ci gën a mën a yokke waxtu màggalu tuubaa nag bokk na ci ya ñuy war a gën a baril mooy jàng alquranul karim ngir jëfee ndigalal borom bi tabaaraka wa taala ak ndigal loo xamante ni yonent bi alayhi salaatu itam feddli na ko waaye sëriñ bi itam feddli ko kon alquranul karim lu ci waaye mën a jàngal te sellal ko bokk na ca benn la ca yee ñuy màggale ba ca topp nee na mooy bi dikrillaahi tudd yàlla tudd yàlla nag alquran jooju ñuy jàng dara jiitu ko ci wa afdalu dikri kitaabullahi loola ca la waaye tudd yàlla itam jàng xasida ca la bokk ndax xasida li ci nekk weesu tudd yàlla ak julli ci yonent bi alei salaatu wasalaam ak kañ yàlla ak kañ yonent bi kañ alquran ak digle lu baax ak teral bon kon loola itam ci tudd yàlla la bokk bañ ca tegaat mooy wasalaati ala nabi muy julli ci yonent bi andi salaatu wasalaam loolu itam ku nekk xam na ngëneel ya ca nekk ndax loo xamante ni yonent bi andi salaatu wasalaam nee na ku julli ci man benn yoon sunu borom julli ci moom fukki yoon ku julli ci man téeméer yoon mu junni ci moom yoon di wax ba ne sa kër sax aljana lay doon kon loolu moom itam kuy wut lu baax bunt ci wut lu baax muy asalaatu ala nabi julli ci yonent bi andi salaatu wasalaam ba mu ca tofal mooy wa itaamu taam fop aw ñam di ko joxe muy ay berne nga di ko def ngir jëm yàlla loola sax dafa amaat cër ci màggal gi ndax bi sëriñ bi diglee màggal gi dane boo ko ci kenn xeebal bu ko ci kenn yéemal daal nañ tàmbule ganaar ba ca gëléem kon loolu lu mat a bàyyi xel la di ndigal lu yàgg itam lu alquran mas di digle mooy joxe aw ñam ngir jëm yàlla wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura te itam joxe aw ñam itam bokk ci bunt yi nga xamante ni mënees na cee yegg ci yàlla sunu borom tabaraka wa taala ndax ba ëllëg bis penc ba sunu borom di nettali kuñ sànni sab téere ci sa wet nga bég bokk ci ñay taxe waaye kuñ sànni sab téere ci sa wet càmmooñ nga nekk ci aw tiis wan yaasu billaahi koo mel na kooka dane fa yaqulu yaa laytani lam wuta kitaabiya sama téere bi ma bañ cee jot wala ma adri ma xaw ma luy sama xisaab ak fu muy mujj yaa laytaha kaanatil qaadiya aka neexoon àllaaxira bañaa am tañ yeen ci àdduna maa ax naa an ni maaliya alal jama amoon ci àdduna daan ko pasar pasare amalatuma njëriñ xalakaan ni sultaan ya nguur ga ma amoon sànku na loolu lépp muy ay jàmbat yoo xamante ni nit kooku nga xam ne dafa texee di wala yaasu billaahi ma ngi koy jàmbat ngir xam fa muy mujje ci aw tiis ak naqar wu sax dafa mel ne dañ koo laaj ne ko waaw lii ngay jàmbat ak fii nga nar a jëm te tamit aw naqar lu la ko yóbbee waaye tëkku ba ñëw itam ne ko xuzuuhu faxuluuhu jël leen waa jooju ak njàmbatam lu bari ngeen jéng ko sumal jaxiima salluuhu dem leen yóbbu ko sawara ngeen dugal ko fa mu jaaru su ma fii silsilatin daroa saboona diraan faslukuuhu foofu leen càllal ak soixante-dix mètres ci waxin ngeen yeew ko ci bam na dong ñëpp jaaxle ne kii lu waral metit bi ñu teg ko ko ne innahu kaana laa yuminu billahi alazim li waral lii dal ko dafa gëmutoon yàlla mu màgg mi ñu ne ah, loolu day <coughs> war naa mën a tax ñu mbugal nit waaye lam ca teg wala yaxuddu ala taami miskin yi daawut soññee ci ñamu miskin yi daana am lu ko doy ba mën ca dimbale kum tane ci aw ñam te du ko joxe moo tax fa laysa lahu l yawma xamim tey ji amu fi xarit wala taamun illa min ghislin amu fi aw ñam wuñ koy jox wudul ñamu sawara te laa yakuluhu illa alxaatiun ñi juum rek ñoo koy dunde loola li tax ma koy indi mooy loolu rek ngir xam ne ne bernde ak joxe aw ñam am na cëslay lu wér ci biir lislaam naka noonu ña tàbbi sawara wala iyaas billah ñu ne lu ngeen doon sàggan ba tàbbi sawara maa salakakum fi saqar lu ngeen doon sàggan ba tàbbi sawara ñu wëlbatiku di tontu ci laaj boobu qaalu lam naku min al musallin ah ñun de bañ nekkee àdduna dañ daawul julli ñu ne ah loolu de kon war na leen a mën a dal ak lan ginnaaw daawu leen julli loolu lii war na leen a dal ak lan mu ne walam naku nut'imul miskin loolu itam kon mu ne daawuñ àdduna bañ fa nekkee daanañ am aw ñam doy yoo xam ne mën nañ cee jox ñeneen te daawuñ ko def wa kunna naxuudu maal xaaidin daanañ di di buur rek ak a xuus lu nit ñi wax ñu ànd caag ñoom te duñ vérifié dara wa kunna nukaddib bi yawmi diin dañoo gëmutoon bis pénc xataa ataana yaqin ba dee fekk ñu ca loolu itam kon dafay dil siwaat joxe aw ñam ngir jëm yàlla bu ko sëriñ bi digle ci bis bu mel ni cës laay laay kon weesu nañ jàng alquran ak tudd yàlla ak julli ci yonent bi ak joxe aw ñam mu teg ca wa ziyaaratu saalihin maam nga ngay dem di ziyaare ji nit ñu baax ndax sëriñ Touba ku sa baax daf laa yéene ak ak sa baax ànd caag yow jàppale la ca ba digal ay taalibeem itam neen fu ngeen gis nit ku baax neen ngeen ko siyaare ji ngir jëm yàlla wazur xiyaar al ulama wa saalihin wax dim humu lillahi jalla kulla foo gis nit ku baax na ko siyaare ji te def ko ngir jëm yàlla te futteeku liggéeyal ko ngir jëm yàlla kon siyaare nit ku baax dafa am wàccuwaay bu rëy rëy rëy mu teg ci lan ziyaarati saalihin wa mudaarasa wa mudaarasati siyari saalihin mooy di fàttalente ci seen wàllu diine ak jaar-jaar nit ñu baax ñi ngir ñu mën caa jële ay bind wasilati rahim ak jok ak bokk bari waana ay mbokk yoo xam ne ci biir màggal ak Tuubaa ci la ñuy gisee ci la ñuy tasee te daanañ ko ji gisee ñuy jokkalante ak mbokk yeesaat foofu jokkaloo bu am kon yooyu Cheikh Mamadou Fadal radiyallahu anhu tudd ci xutbaam boobu ci 1962 lu ñuy résumé la ab tënk la ci ku bëgg a wuy si màggalu Tuuba ngir màggal ko ca anam ngam gëne ak ku toog ngir gàllankoor fa nga nekk boo ko màggale noonu itam bu neexee sunu borom dana ko nangu